سكرت بخمر إن أممت بشربي سكرت التذاذا منه من فرط قلبي Allah

Allah, la la la la Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah,

Yeah. Yeah. بل يقولنا الله يا الله يا الله إنما بين بين بين يا الله الله يا الله يا الله يا الله إنما بين بين بين يا الله الله يا الله يا الله يا الله

Ya Allah, ya Allah, ya برهامو برهامو برهامو برهامو برهامو يا الله يا الله محمد آمين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

Allah

di nuyu borom kër gi muy Mbori Cissé gannaaw bu ñu ko nuyoo ñu ngi nuyu Cheikh ñu ngi nuyu Cheikh Baye Tar Touré Abismullah mu nekk xarit bu mag nekk muqaddam bu mag fii ci Màkka Farafane muy liggéey ci faydu Mawlana Ibrahim liggéey bu rëy waaye di liggéey ci lislaam liggéey bu rëy yal yàlla gërëm ko di jaay rasulillah ñu am ñaari cant yoo xam ne dañ ko sant pour ñu sant ko ci programme bi muy cant boo xam ne dafa jógee ci ndaw yi gëm am cant boo xam ne dafa jógee ci Ndari Cissé jëm ci soxnaam Banna Camara rëy mbooloo mi gëm sa bopp ñu ngi leen di sant bu baax ci teew bii ngeen teew muy woote boo xam ne ñoom ñoo ko woote doon sant seen jigéen seen yaayi groupe muy Seyda Banna Camara doon soxna ci ndëri nee na mu ngi leen ñu ngi leen di sant bu baax ci teew gi ngeen leen teewal ndax woote ñu wuyu la yombul lolu yombul waye lolu yeb nak and ci l'islam moko waral buñ àndul won ci l'islam woti bi du mën am kon and biñ and ci l'islam motax ñi sant seen jigeen wo len ngeen ñew defal len daaira waye sant yalla lu tax woti bi yomb soxna si ñi defal daaira dafa bokkon ci bi daaira bi mu nekkon xaarif mu nekkoon ku xamoon boromam borom këram gëm gërëm ko lool ku xool lii rek xam ne borom këram gërëm na ko muy jàngale boo xam ne ci lislaam yéen soxna yi fi teew yépp jàngat ci yéen ngeen war a góorgóorlu ba am ngërëmande bii li jigéen bu sa borom këram gërëmut mënoo ko am ay ndaw fi jamono toll nga xam ne àdduna fëkk na leen ñoom ñëpp seen xel daj lii ñu di ko defal jigéen boo xam ne borom këram da koo gërëm jàngat la ci bépp ku fi nekk kon banna am nañ yaakaar ci moom bu baax am na ñaari yaakaar ci moom nekk na xaarif ndax këram mooy nekk na xaarifatul billah lii ñu nekk nii réewul ko wóor ku xamoon yàlla la ndax tarbiye woon na sëriñam a ngi nii toog lu tax nag ñu ñaan ñàkk koo wax moom bu xasee wax kenn warutul wax ndax kalifa la kon banna ñaar yaakaar lañ am ci moom mooy nekk di nekk xaari ak borom gërëm gërëm di ko gërëm ñaari yaakaar yooyu am ci moom ndax Maolana Cheikh Ibrahim wax na ci ay bayit mu ne man lam menal mabi kat rahmaani boobu maaru taxat ma dal xasmaani xalaxtu sa xaw yax bu dooni yax nii bi yax bu dooni yax ni suuri lu ci teg laa taala juwo dakka bi nay leen xetaan taaxu xajibatul kulli rahma loolu moo ëpp solo nag ci jotaay bi mu leen yàggal seen yitte ci diggante ak seen borom taraahu di ngeen ko gis xajibatul kulli rahman jege kon tan bi leen yàlla jege kon sant yàlla bi nga xamee ne Banna Camara balaa moo fàddu di def intiqaal fii ci Makka Farba di wuyu boromam moom fexe woon na ba xam boromam kon jàngal la ci bépp ndaw bu toog ci jotaay bi te xamagula sa borom góorgóorlu nga dem xame sa borom yalla bindu jam ngir jamu jaamu kese to la wax saxal yak yàq ba doon yi lum namu ci yak ba doon yi yàq ni seen ni kon fexe leen ngeen góorgóorlu ci seen diggante ak seen borom waaye nag fexe leen ngeen góorgóorlu seen diggante ak sen morom ba na bu góorgóorlu mu doon ci diggante ak morom ni morom ni moy nit ni do am li de bu góorgóorlu tawut ci diggante ak nit ñi billahi do am ni man ñu rek borom kërëm la waaye lépp rek jëkkëram daf la defoon ci xolam bu la rek da jàpp dafa gis boppam te loolu la jàmm bi gis nga bannaa dafa nekkoon jigéenu muhajir dafa mel ci biir muhajir bannaa loolu la doonoon muhajir ci olof ñu jigéen bu jógee ci famille ñëw di sëy ci famille jàmbur loolu la ñuy tuddee muhajir moom nag dafa doonoon jigéen ma xajir te dund dund lool nak di nga bëgg dund lool wallahi ni du gam jité ay ndaw ñu japp jàppale yaay ñu do bëgg na aduna te jotaay bii daf ko jiite loon de ndax am na lu mu leen denc lool la leen denc lool nak moom la gunu ni da da ni nii na bi dina aduna ba paré la groupe bi dafa xamne da na am na lu mu leen denc lool lool mooy ànd ci lislam de ànd ci lislaam nag dafa jëfe nit dana ànd nit pour bëgg ñu gis la nit dana ànd nit ñi pour bëgg ñu am kii moo ànd nit ñi waa ànd nit ñi ngir jëmi suñu borom ah daanaa de dafa nëb agul yi ndax jotaay bii moom daf ko fasoon ci xolam laata muy génn àdduna bi mu génn àdduna ba pare nag ci la bu ñuy am na lool tax ak cant la bu dox ci digënté balna ak dund waye ak cant la bu dox ci digënté balna ak borom kërëm ñaari cant la ndori da fay sant balna kamara ngir liggéey bu ko liggéeyal ba ba mu sul ñaari yi rek lañ doon ñaan jigéen bu sul borom kërëm wara borom kër gu sul soxna balna nak dafa doona naa ndori daf ko daf ko ndori dafa ndori dafa diñ ci balna ci bir suuf bu ñuy ñëw diko ko billaay lii mënoon naa ñàkk seet leen ñaata soxna ñoo làq ci màkka far bañ am na ko am est ñoom ñooñu am nañ ko am cant gu toll nii ay kilifa na ay kilifa làq fii ci màkka far bañ yi denc leen amul cant gu toll nii billaay kon jotaay bi yal na yàlla gërëm ko aji jiitu ji yal na yàlla xaaree ko aljana dekkal ko ci màqay may Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi jaayu rasulillah ci barke Cheikh ma Baye Mokhtar ñu ngi kontaan bu baax ñu ngi kontaan bu baax li yombul de jamono dafa tënk nit te nit ñi dañoo dëddu maanaam yàlla yenu ci aduna mais yow da nga defar ndaw ñi xoolal siikar bu neex bii rek ku ko déglu rek xam ne ñu koy siikar xool laa ilaha lan nag dafa yomb waaye fas ko ci xol dafa jafe tudd ko ci dafa jafe saa yu tudd laa ilaha illallah seytaane day daw lu toll ci mille kilomètres kon nañ ko di tudd bu ñu ko xamal rek ñuy dem nañ ko di nañ ko di dund di ko xaatir di ko yëg muy neex ñuy dem ak moom ba aljana waaw ku leen xool xam ne yéen ay nit aljana nga ngir ki leen defar moom buñ ko defaratoon du defere yi nga koy defaru du defere da ngay defaru ba pare da ko defere kon ñu ngi sant bu baax gërëm jotaay bi yàlla yàlla gërëm ko di jaay rasulillah kalifa gi yàlla yàggal yàlla yàlla yàggal ko fi bu ñu sañoon dañ naan yàlla fi yàgg ni jant xam naa ne moo leen di gënal ngeen di ko gis ak wér nag di ko xool muy dox boo ko boo ko xoolee rek xam na njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim ci dox maanaam ci dox ak kàddu boo ko xoolee xam na njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim ndax nit di nga nit li nga topp da nga koy gëm te di ko dund te di ko wane ku la gis xam na taalibe nga ku la gis xam na saytu mu rabbi nga moom yàlla dafa def ci moom loolu kon yàlla yàlla yàggal ko fi bi jaay rasulillah ci barke Cheikh naa Cheikh Ahmad Tidiane السلام عليكم ورحمة الله ثم سلامنا على المختار بذل الوجود مركز الأسرار سر السؤون مجمع الأنوار سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bokki ci islam bi bokki ci limaan bi bokki ci ihsan bi bokki ci ixsaanul ihsan assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi sant borom bi beneen yoon di julli ci yonentu yalla muhammadu sallallahu alayhi wa alihi mënoon nañoo bàyyi sikar bi mu continuer waaye dañoo nekk ci jamono nawet te taw du tàggoo ñu bëgg a xamal jotaay bi li ñu dajale waaye jeexut suñ ca nag dañuy bàyyi xale yi ñu sikar nga xam ne fu fuñ gisee taw rek su boobaa dinañ mën a yëkkati jotaay jotaay bi dafa am solo ba nga xam ne waxtaan du ko wute foog ñu wax dëgg-dëgg alaaji Touré ubbi nga jotaay bi ci ubbin boo xam ne loolu rek doyoon na mbooleem luñ bëggoon a wax tënk nga ñu ngi nuyu kilifa yu tedd yi fi teew suñ mag al muqaddam bayalaj loo moo ñu toog nga xam ne bu faydu di dugg ci dëkk bi ba tey mu ngi ànd ak Cheikh Ibrahim suñ mbokk mu jeex ci yàlla jógee kunda muy Abdou sar mu ngi ni toog ci sama ndeyjoor boo demee ci jumaaja masjidul rahim ci ña amee jumaaja la bokk naka noonu kenn ci ñi nga xam ne mag la ci xele yi ñu àndoon démb ànd tey te dañ ànd ëllëg muy Mouhamed Diallo mu ngi ni sama càmmooñ suñ onkul Cheikh Ibrahim Cissé moom tam mu ngi ni toog nga xam ne kilifa ci ndëri nu yaamidi yàlla dafa def moom dafa dem Serekunda ci nganale unkul suñ nijaay Matar Touré kon buñ ñëwee ñoo ñëpp nuyu daayira bi nuyu nag suñ mag suñu faañ soxna jiyee mi nga xam ne mooy kilifa ndëri suñ ko nuyoo moom rek nuyu leen jigéen ñi teew ñëpp waaye bokk yi bii jotaay la boo xam ne waa ësël gërëm nañ ko waa ësël gërëm nañ lu tax xale yi dañuy jëf waaye yàlla moo jëf ci ñoom léeg-léeg mu jëf yoo xam ne duut xalaati nit yàlla mooy jëf ci yow ku xool xale yi xam ne jotaay bu rafet bii kenn xamul fuñ ko jëlee ësal lañ ko jëlee ndax ki fi jógee mu soxna banna ñun xamoon nañ ko lool te yàlla daf ñëw dimbale duut xam rek ñi xama jox ko wir da jox ko tarbiya waaye ñun ñoo ko ngoro jowoon ak Euh, Cheikh Ibrahima Cissé mi muy Mame Bira ñaar ñoo demoon ca dëkk cosaan ba dem ñaane ko naa bi ko euh, soxla bi kii ndëri soxlaa ci mban la njakk a ñëw Serekunda bi ma ko waxee ma ne ko àndal ak moom ñëw biñ àndee ñëw toog sama néeg ma soxna Banna da ngaa dëkk kii mu ne waaw ma ne ko sax xam dëkk bu ñuy wax Màkka fa dëkk Kër Ngumbu Rod bojji sok bi nga non bagam bi li ñibi ndax da nga and ak mom bobu am na lu ma doon sóoraale man mu ne ma bëgg naa ko fu dem fu ma yobu man na fa tok li laa njëkk a ci kaat bu bànnaa ndëree ngi mu ngi tok ñu ñett rek ci néeg booba laa am na yaakaar parce que li ma daw mooy nga dem séré ko nda jël fa soxna soxé da ko isi kër gu mu du fa nga tok way banna bi ñewé ñëwee makka far ba lay xamal ni wàllu yalla la mooy ñun fi fekk liggéey bi ñuy def mooy ko dàq wala du dëgg jigéen ñi seet leen ma du dëgg te dafa bokk ci famille boo xam ne muy famille joolaa nit ñu ñàkk caaxaan lañ boo doon seet Gambie ñi gën a ñàkk caaxaan jëlal joolaay boo ci amee jabar te mu bëgg la am nga jabar moo tax bi mu ñëwee jéemu da jàmbatu dara lépp lu jigéen ñi màkk farafañe def rek ba naa loolu li muy tekki mooy kii may sëyal bugg naa ko bu fekkoon ne jataay bi beneen jataay la dama doon jël yoonu maarifatu billaahi waxtaanal leen ci waaye waxtaan bii may def dama bëgg man ak yéen ngeen jàngee ci rawatina jigéen ñi mbaa naa daf doon sëy sëy bu jafe sëy ab joolaa bu bàyyi mbokkam ñëw dugg ci ay olof nga ñëw ñu yóbbu la ca àll ba ngay bay loolu ñeexu de waaye mu jël ko rek def ko mu tax yàlla fay ko gannaaw njabootam mu am jotaay bu mel ni jotaay bii wàllu bu wa gërëm nañ ko seen njiit mooy yumtu yàlla muhammad yumtu yàlla muhammad nee na bu ngeen rambati gaadini àjjana yi wala naa am na ñu xam naa ko naa ko àjjana yi bu ngeen doxati ba romb ko na ngeen dog lekk ci àddina la wax na wóor àllaaxira waru na ñu ne ko yow mi yàlla yónni nekk ci àddina di lekk ci bañatam àjjana fu ñu koy jëlee mu ne xilqatu dikri jotaay yi tudd yàlla ñooñu waa àjjana la bu leen ooyee waa àjjana bu ko gëñee du ko kaafara ndax yeneen tuddee ko wax kon waa nubuwa gërëm nañ jotaay bi lu tax ñu gërëm ko mooy tudd yàlla gi waa wilaaya gërëm nañ jotaay bi kuy seen njiit seexu tijaani seexu tijaani te feeñ dell bàyyi ne xat tabaddaa xub fardan maa lahu fil kawni zaani xut bi feeñ na ne dell ci biti amul kenn ku fi nekkat loolu moom beneen affaire la moom Seexu Tijaani moomu gërëm na lu tax bi mooy jaami yàlla yi tudd leen jox mooy tariqa tudd yàlla wir de suba wir de ngoon lay wax tudd yàlla rek kon kooku gërëm na seen وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا alxuraan mu ne bu ngeen jaaree yoon wi da ngeen naan ci ndox mi neex mi mbaa jaar nga ci yoon wi waaw jël nga ngir dëtt jaan waaw mbaa naanu nga naanaguma dama seeti wax sëriñ ba benn moo xob wala yow wax xob parce que alxuraan du fen alxuraan nee na ku jaar yoon wi di nga naan ndox mi neex nga ne man de jooy biir dëri mbaa naan nga naanaguma guma mané demal sété wa docteur ba man na am garab yim la joxoon nim ko nim ko waxé nané wala ko wala docteur bi moo garab yu bax lolou dama ko ci ñambas pour ñu gëna gor gor mané ne jotaay bi waa faydu gërëm nañ ko seen jitt abi ishaq maulana cheikh ibrahim anyal ñu waxé waxoon ne safaa لي الوقت بذكر الإله كما كان صحابة إن قاموا وإن هدروا sama waxtu yi yëpp man Ibrahima Niass ci tudd yàlla laa koy dépassé boo ma fekkee Medina boo ma fekkee feneen loolu moom jëfe na de waxtu yëpp ci tudd yàlla fu ko bàyyi teg ci alquran allazina yaskuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa ala junubihim yàlla ne am na ñoo xam ne buñ taxawee ñu ngi tudd yàlla buñ toogee ñu ngi tudd yàlla buñ tëddee ñu ngi tudd yàlla taxaw toog tëdd jeexal na ko masaayiri salaase yi la nubuwa wilaaya xilaafa jamono bu ne ñu ngi tudd yàlla waaye nag defe nañ benn place ñoom nubuwa wilaaya xilaafa wa yatafakkaruuna fii xalqi samaawaati wal ard ñu dem ca borom musaakara mi borom bi naasoo soo demul du sotti naxante baaxul القران الذين يذكرون الله قياما بحل ينتهي المؤمن وقعودا بحل سيخ تجاني وعلى جنوبهم بحل مولانا سيخ ابراهيم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا هذا بنا برموزا كرانغوكي mais mako ci ñam baas neex na ci de wala yalla neena afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqat kana gisu ngeen ni ma bindi gëna ni wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at xol ngeen kan asamanam ni ma ko yëkëté ni ci top wa ila al gaañu ne wa ilal jibaali sang mooy déedéet wa ilal ardi damaa ko lay wa ilal ardi nga door a wax wa ilal jibaali pare nga wa sakkir innama anta musakkirun ba tey ñëwaat naa ci musaakara afala yansuruna ilal ibil xool leen ci gëlëm gëlëm dafa njool man la koo ñàngu noo koy def yëngal laxaat gi mu toog wala mu tudd nga war lii yàlla baal nga ko yow si mu xanam bi daf la koy ajjil nga war waaye tudd sa ñoom ñu naan yàlla yàlla ku ko mën a gis ñu ne waxul dëgg yàlla moo si yàlla nangam nangam ma ne la ko alxuraan ñëwee gëlëm te gëlëm ñu koy war mën na koo ñëw waaye dañ koy yëngal rek mu tëdd nga war dama si mu bi nga seet wa ila samaayi kayfa rufiat ñu ne asamaan bii la du bii sa ñu ne doo wala lu bu si waxoon bis yi dafa wax mu ne kayfa tarqa ruqiyaka al anbiyaaw yaa samaaw yonti yàlla man hey yow asamaan asamaan mooy lu kowe yonti yàlla moo kowe ñëpp loolu laqad neexu da kenn mu ko weddi kon asamaan fu ko yàlla tudd ci alquran demal nga bàyyi xel bu baax ki ki kowe ki nga xam ne bu dugg doon yaram wi yaram wi ne laaj loxo du dox nopp yu dégg dégg xool lan lañ di wax yonentu yàlla Muhammad léegi nag wa ilal jibaali moo ci toppoon wa ilal ardi ngay suuf borom suuf moom ngay seeti alquran noonu la ko tërgee dafa wax ne maa xalax nax samawaati wal ardi suuf ñëw wa maa baynahuma illa bil haq déglu wax bu maa xalax naa binduma ولا بنين السماء واتر والأرض وما بينهما إلى بلاق ولا والأرض إلى بلاق بنين أزمان بنين سوف بنين جوجي ينك الحق أزمان بها قولا سوف بنين تغل بها قولا جوجي حقولا تفهم مويا الله كون بها قولا القرآن دفعين لك asamaan bii ak bi ak jaww bi su mooy xàqulu lu tax ci mooy yàlla ñu gën a bëri ci li wéet seen bakkan mooy seen yàlla te ñu ngi taxaw ci kaw suuf kon lu yàlla wax kon waa asamaan waa suuf waa jaww mooy gëlëm nga nga jël suuf nga jël dëj bi borom mooy kan mooy ki waxoon ne wadukaturi isamma naajaani bi ma jiyaaleeg moom la sama doj wi teg tasaaroo doj wi lu doj ci borom doj Mawlaana Cheikh Ibrahima ko doon tey dangay ragal bàyyi yëngu géej doy na kemaan di rama xami sawdaan dañoo sangoor yi fekk yaram wala taxu nga ci suñ baay si di rama iblis tëddoon balaa njàngee afanaan ren nga ko xalaat gamlee si di rama góor góor jërëjëf Saba Si kon biñ gisalee gëlëm gi suum suum asamaan si mu ñëw ñu suum ko asamaan suum audio bu suum suum ko mu ñëw ñu mokkante ji dañuy dem ci wasakkir innama anta yow musakkirun yow yaay musaakara léegi nag lu ñu di xaar ci yàlla mii alquran ba mu jeex ñu déglu alquran ba mu jeex alquran jeex ñu déglu waay ñu maa ngi laaloo biir sama bopp man waxuma sax pour nit ñi inscrit waxuma mu xamul damaa wax pour laalee biir sama bopp maanaam li ma bëgg li ma bëgg loolu laa loolu laa bëgg rawatina waa Màkka Farafay billaahi lasi laa ilaha illa huwa ku mos lii da nga xam ne lii neex na dama wax ne alquran dafay lépp yonent yàlla mën na dafay lépp Seexu Tijaan dafay lépp Baay Ñas dafay lépp dañ ko war a firi nag ca ngeen jël dama wax ne dama wax ne yàlla dafay léeb yonent yàlla Muhammad dafay léeb Seexu Tijaan dafay léeb Baay Ñas dafay léeb muy ñeent mooy xaaxoo mooy laaxoo mooy jabaroo mooy melakoot kon la ñuy firee man naxante laay bañ mënu ma ko yàlla dindiwul ma bu ma topp caaxaan nga ne ma fu yàlla léegi ma ne alquran dafa wax ne subhanallah déglu leen ñu déglu ko diwaan ngir yàlla ñu déglu allah nga war a wax allah ku daanu allah lay wax wala ayca li may wax mooy ah bàyyi laa wax mu ne ah ñaari yi sori wu ñu li may wax nag mooy yàlla dafay lépp ci alxuraanam ci lu yàlla wax alxuraan nee na law anzalna haza alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu xaasi'an mutasaddi'an min xasyatillah alxuraan ji buñ ko wàccee ci dëj yi mu tasaaroo ma ne dem toog ba fees camion ba mu fees ak kaamil nga sotti ko ci xeer ba xam dana tëwoon déet kon loolu du yéen dañ ko war a yàlla moo méngoo gaa yi gëm yuxrijuhum mina zulumaati ila nuuri daf leen di génnee ci lëndëm yóbbu leen ci leer léegi damaa laajte man mooy ku gëm yàlla ba pare ñu war laa génnee ci lëndëm yóbbu la ci leer allahu waliyu lazina amanu yàlla moo méngoo ñu gëm waaye bu pare yuxrijuhum dana mu génn leen mina zulumaati ci lëndëm yi ila nuuri jëmee leen ci leer benn leer ki gëm yàlla ba pare wallazina kabaru ñu weddi awliyaahum taaxootu ki leen méngoo mooy taaxoot di saytaane yuxrijuunahum mina nuuri ila sulumaati moom daf leen di génn ci leer yóbbu leen ci waaw ki weddi moom fu mu jëlee leer moom wala déggu leen aaya bi seetlu bu baax ma leen wax yàlla mu ne moo méngoo ñi gëm yàlla ba pare daf leen di génn nag léegi gannaaw bu ñu jëmee yàlla génn leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer waaye ñu weddi yàlla moom daf leen di ci leer yóbbu leen ci lëndëm ah ñu gëm yàlla waaye ñu weddi yàlla moom suñu jëlee leer ba ñu war leen a fekk ci leer ga da leen ci génne saytaan da ci génne da leen yóbbu ci lëndëm kon yàlla dafa lépp yonent yàlla maama dafay lépp sallallahu alayhi wa sallam yonent mu ne المؤمنون أدول الناس يوم القيامة أعناقا من المدكن من المدكن من يوم القيامة من سبيل الله loolu la ñu jël dem ba yowmal xiyaam ñu gis moo kër yi seen dox yi dugg ca kaw seen leen li ma leen wax bu baax yonent yàlla man mu ne nodd kañ daf leen doon tàgg di nodd kañ yowmal xiyaam bu ñëwee seen doq yi day gudd ca kaw gis na ñun suñu yi ni mu yem nii bu gën a gudd bëtu rafet wala kon yonent yàlla dafay lépp dafay lépp yonent yàlla Muhammad nee na waxtaan naa ko ay maj soob léegi ci ngoon inna allaha yàlla laa yansuru du xool illaa suurikum ci seen melo yi wala illaa ajisaamikum xoolut ci seen jëmm yi walakin yansuru illaa qulubikum dafay xool ci seen xol yi yàlla seetut ci melo wu rafet wi jëmm ji waaye dafay xool ci xol bi xam nga nit ñi danañ koy wax waaye léegi nag lu tax moo ci alxuraan ne xosoo siinatakum inda kulli masjid bu ngeen di julli ji ngeen sol lu rafet ñaari wax yi wutee na de boo solee sot dem julli ci imaam bi ne la eh, yow li nga sol ni sot na sol xaftaan bu rafet bu fekkee yàlla xoolul melaw xoolul jëmm moom luy yoonam ci xaftaan bi du bàyyi nañ ñi sot sot dem julli lu tax mu ne bu ki jotee na ngeen xotti yére yu bees dem julli ji ko tabaski yonent yàlla man mu ne bu tabaski jotee libaasul jadid lañ bëgg libaasul jadid yàlla wax na léegi yonent bi ko wax mu ne yàlla mu ne xolut ci melo xolut ci jëmm moom moom bu tabaskiyee lu mu am soxla kon ci malaan yu bees yi est-ce que amut lépp am na kon borom melo ak borom jëmm kan la ak borom xol kan la lu tax yàlla xolut ci melo xolut ci jëmm di xool ci xol parce que ca xol la ñuy gisee te xol la borom xol fa la programme bi nekk ndax jibril bu ñëw yàlla muhammad dafa ñëw sukk ne ko dama lay laaj lislaam yonent yàlla muhammad fañ ko ko julli woon ginnaaw si kañ màgg dama lay laaj liimaan mu ne ko xanaa nga gëm malaaka yi gëm téere yi gëm gëm na léegi mu ko waaw luy leex saan nag mu ko an taxbuda laa ka annaka fa in lam takun taraahu fa innahu kon kat taway tuddu na gis yalla kon mbaye yow tar dewal ni ni di yow di alama tuddu na gis yalla de te hadis bi muttafaqun alayhi ñëpp ni wér jibril laj ko luy lislaam ko tontu sahir wax la ilaha illallah kon wax doyut gor gi ñu ñu ko leen alaaj wax doyut waaw mu ko lu ni man mu ne nga gem ko kon nga gem rek doyut mu ko lu ni sal mu ne ko nag léegi nag dal jaamu yalla wa mel ni yaa koy gis yalla nag mo mu léegi nag boo ko gisul moom mu lay gis waaw boo ko gisul doo dem lijjanti ji ko bañ a toog muy lay gis nga bañ koo gis dama lijjanti ko comme moom moom fi ana jamiisu man sakara man ku may tudd rek maa ngi toogaale ak yow loolu la wax yow tiijaan bi yow muy tudd yàlla suba ngoon yàlla mu ne mu ngi toogaale ak yow a ah man moom gisuma ko doo dem lijjanti ji ko wala yàlla fay naxe ana man yàlla jamiisu man sakara maa ngi toog ak ku may tudd siixut yaa ngi la tuddal yàlla suba ngoon nga ne di tudd yàlla suba ngoon ma ne ana moom gis nga ko ne gisuma ko kon doo ko lijjanti wala jaru ko bu la neexee toogal baax na nekkuma dina wax sama wax hadis laa la nekk di jàngal te hadis yi du may tànn hadis yoo xam ne même ñu lay dégg toog fi di ay markaas mënu ñoo weddi hadis yàlla ne ku may maa ngi toogaaleeg yow allah allah yàlla mu ne ma ngi toogaaleeg anam est que nekkul di ñu nax naxul ñu yow yaa amagul docteur moo tax ne alquran nee na faskuruni askurkum bu leen ma tuddee man yàlla rek ma tudd leen allah bàyyi moxtaar tudd na yàlla ndax yàlla tudd na ma déglu leen ba xam ma ne dégguma dara dafa naxe wala daal naxewut yow yaa amagul sëriñ mbokk yi sëriñ moo mënta ñàkk वेझी आगाई दो कान नाली समूर

Jai Javan Jai I'm

मोहम्मद ने julli dëgg dëgg dëgg mooy li nga bëggal sa bopp moom ngay bëggal sa morom xadis bu wér xutbakat yaa ngi koy jàng gaa yëpp a ngi koy jàng waaye ñu ci bëri gëmuñ ko de li nga bëggal sa bopp xam nga ci lu ma nekk mooy lii bi ñuntu yàlla Muhammad ci laa nekk ba léegi pour nit ñi war a yëkkati seen tey déggu leen bàyyi ci audio bi mu ne waay waay na ngeen yëkkati tey seen nit ñi ñoo fàtte seen nopp yi rek waaye bàyyi kay wax na waaye waaye na ngeen yëkkati xitte yi seen yoo xamul dayoo lu tax nga bañ ko ne ne doyal naa lu tax bàyyi mu ne pay bi len joxoon li li ngeen di bigee maanaam pay bi leen joxoon seen déggu lu njëkk mu ngi leen naan la day nal machine ndolla la nga déggu leen ko ci audio bi toujours ma dugal ko yéen yàlla man mu ne dëgg-dëgg mooy li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko keneen waaye léegi ma laaj leen ba kon jullit xam na yéen legi borom pharmacie bi amé pharmacie ci dëkk bi di jaay pex est ce que bëggul nit ñi wopp moom bu nit ñi wopp ndax dana jar wa bëgg na bàyyam ak yaayam woppam kon lim bëggal mom bëgg na ko ni wala seetlu leen ko waa gaskat yi bàmmeel boo demee Serekunda am na ñoo xam ne ci li gas bàmmeel yi seen liggéey dañuy xëy di gas bàmmeel buñ gasé bàmmeel bu gudd bu gatt bu em ñi ngi xaar bo ñëwé xol bu tollok sa waji nga jënd boo demee Diosone mm-hmm. ñu ngi fa am néeg gas bàmmalee seen liggéey waaye ñooñu ay jullit lañ damay laajte ndax ñoom bëgg nañoo dugg ca pax ya waaye ndax bëgg nañ seen baay ak seen yaay dugg waaye bu kenn dee mbaa danañ jarle bëgg nañ bëgg nañ bëgg nañ bàmmeeli jar de waaw kon lu yonent wax kon est-ce que julli am na sang bi kaay leen dama bëgg dama bëgg dama bëgg leeral benn sew sew mooy dafa am ñoo xam ne dañ am problème yi sang am problème sant man lula laa bëgg dakk baye neena alhamdullilah ba yalla xamé wu doom bàyyi mu ne yalla sax daf ni alhamdullilah allati lam yattaxis wala daa yàlla mu ne sant na bopam ne bama bama amé wu doom baye mu ne doomi ñu yi ak doomi wëlli li liñ ci diine ji mu ne nit ñi da leen rek di len màggal rek ngeen seen barke te duñ jox nit ñi pin yalla li de baye ko wax ok léegi seetlu leen bu baax hadis bi kon suñ demee mu am koo xam ne waxtu wuñ lëjee jaxasoo ci waxi yonent yàlla ma ak lépp moom yàlla rootal ko ci barkeeb baay te lépp lu wax ne baayam ko jox waaw <laughs> ah, loolu dafay loolu loolu li ci li ci nekk sa problème dana waxul bàyyi say wax bàyyi sotti ko mi mu ne kaay leen li nga bëggal sa bopp moom ngay bëggal keneen nga doga nek julit lolu moy bi yalla bi kenn ku xam yalla bala nga contant da bëgg sa morom xam yalla lolu du ko ndir ma ngi non waye boko bëgge yobbu nak ci firi bëgg na sama tol sax sa tol sax naxé leg leg ñi digalo sa tol sax do bëgg sama tol sax te bu bu na yalla sala ya fay ñak bokk yi naxante baxut ni seexu tiyani mbolam ko ci jaan jangu nga ñëw Seexu Tijaan bu ñuy wirde xaw bu ñuy wasifa dafay ñëw <laughs> loolu naa ko man yàgg na booba ñu ngi kaw Kaolack ñu dafay ñëw suñu wirde suñu wasifa wi ñu dem ci jàkk ji ñi nañ ñu Tijaan fay ñëw te bu ñëwee bu ñëwee ci ci wasifaaw kër ngumbu bi ko war a dem jéeri kaw te dana dem ngeer waaye dana woy mi dina bàyyi dana dem Serekunda dana egg nag ba Tiwaawan dana demaale Murtani waaye lépp ci benn waxtu bi la

دار دوبا للبرايا موسيلا القول تداني بل الشكر قبل الكون والكرم لم تكن فما ثم غير الخمر ويك بشربي ومت غراما في المدامة فاعجبوا ببرام عبد الله من فروط حبه وجدت حبيبي بعد موتي بحبه هو العاشق المحبوب من فروط قربه أرسلت نفسي واعظا وهي لم تغز سواي مجيبا للرسول وحزبه فقد صرت إنسان العيون وعينه